mbokki alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi dellu santaat suñu boroom subhanahu wa taala mi ñu dajale ci ab néegam ñu fas yéene jël benn bind ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jëm ci buntu fiq te yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo ne woon man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi ddin suñu boroom kum nammal aw yiw dana la xamal la nga xam ne mooy sa diine ñu xam ne it ni diine lislaam aw dundin la amul lenn loo xam ne day aju ci dund doomu aadama lu dul lislaam tegtal na ko yoon wa muy jaar ba mën caa am jàmmi àdduna ak jàmmi àllaxira ñu ngi sukkandikoo ci loolu téere bi nga xam ne ka ca dajale xadis ca nekk mooy alxaafis ibnu xajar rahimahullah di bulughul maram ñu jëloon ci ay téere yu bari ndax téere la bu mu tënk ay téere ba ñu ngi ci juróom-ñetteelu téere bi muy kitaabu nikaax kitaab boobu mooy am ay baab mooy baabu nangam baabu nangam bu ngeen seetloo kitaab biñ mujjee génne muy kitaabul ba yoon jël nañ ca ñaar fukki baab ak ñaar kon lii mooy kitaabu nikaax bi nga xam ni ñi ngi nar a jël tey xadis ba nga xam ne moo ca jiitu ci wàllu googee
كتاب النكاح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباء وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة رواه أحمد وصححه ابن حبان وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل بن يسار
kon mbokk suñu bind bu jëkk ci kitaabu nikaax mu ne an abdillah ibnu mas'ud radiyallahu taala anhu jël nañ ci sahaaba boobu abdullah ibnu mas'ud qaal qaala lana rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yenente bi day waxoon nañu yaa ma'shar ash-shabaab ay yéen ndaw ñi man istataa minkum al-baa'ata falyatazawwaj képp koo xam ne ni mën na caa denc soxna ngalawaay ne denc soxna fa innahu aghaddu lil basar loolu mooy gën a sajji seeni gis wa ahsanu lil farj mooy it di gën a wattu la nga xam ne seeni pay la wa man lam yastati ku amul kàttan ci takk nag fa alayhi bi sawm maa ngi koy dénk muy woor fa innahu lahu wijaa lool day dana doon loo xam ne nii lu koy mën a fekk la muttafaqun alayhi buxaari muslim dajoo nañ ca mbokk kon xadis bi nga xam ne ki koy nettali mooy abdullah ibnu mas'ud bokkoon ca ndawi sahaaba ya mu ne yonente bi bis daje nag ñun ndaw ñi mu ne ey yéen ndaw ñi alshabab ñi ngi koy wax ku majeur te nekkagul jëm ci mag ñenn ñi ne quinze ans la ba trente ans am na la gën a siiw mooy quinze ans la ba quarante ans nit ki tant que yëggagul quarante ans dañ naan mi ngi nekk ci shabab yi ci ndaw ñi mu ne nag yéen ñii day yéen ndaw ñi koo xam ne mën na caa denc soxna denc ba ñaar lay wundu mooy mën na ko ci jëmmam waaye mën na ko ci man-manam képp koo xam ne yàlla may na lay million waaye la góor ñe di sakkoo doom mënoo ko kooku taxul ñuy wax ki am kàttan ci amul it kooku taxul muy wax mu nekk ci mën a denc albaa la ëpp ci borom xam-xam lañ ko firee mooy jël soxna man koo fat donte ne am na ñoo xam ne dañ koy yemale rek ci kàttanu sëy ga mu ne ko mel noonu na takk takk googee gis nañu ne la yonent bi alayhi salaam dégle lu tax mu ne ki nga xam ne takk na soxna day mooy gën a mën a téye ay bëtam ca la shakk ne jeune bi amagul soxna nature bi yàlla binde doomu aadama mooy dafay bëgg soxna kon ku nekk rek dana xalaat xool ko ndax kii bu nekkoon sama soxna waaye en général bu demee ba yàlla wërsëgal ko soxna loolu dana ko gën a mën a dimbali mu téye ay bëtam mu ñuy jàngalit day feddali aaya ba suñu borom wax ci suratu nuur waxal julit ñi wa qul lil muminina yaxuddu min absaarihim waxal julit ñi dañuy téye seeni bët ca mbokk nekkul luy dagan góor ngay nekk di xool soxna jàmbur wala jigéenu jàmbur bu mu mën a doon xoolu bànneex looli islam da koo tere looloo tax yonent bi alayhi salaam ne mooy tax ngeen gën a mën a téye seeni bët doonte ne boo koy wax nit yi tey ñoom loolu ay caaxaan lañ koy def xool boobu nañ ko teree ci réalité directe lañ koy teree ca porno yi ngay seetaan lañ koy teree ca télévision yi jigéen ña def yaramu neen yooyu yépp du daggan jullit toog di leen seetaan amma nag loolee la ca célibataire mën a tarxiis moo raw lool ka nga xam ne yàlla wërsëgal na ko mu am soxna ba pare te it xam ngeen l'islam toujours day teqale loolu looloo tax ab célibataire tey mu amoon 60 ans sax te musul sëy su njaaloo dañ koy duma amma ki am 20 ans ca mës a sëy bu njaaloo dañ koy rey looloo tax ndax kay am na lu ko mën a fekk ca mooy soxnaam moo waroon ko mën a dox digganteem ak mu naan day njaaloo ci suñu yeneen ci alayhi salaam it ni moo gën a mën a téye seen la nga xamee ne nii mooy seeni pay ca la chàkk ni ndaw bi nga xam ne it ne yàlla dé dénkoo ko ko soxna laka ak yëg-yëgam di tëcc di jëme ca jigéen ña moo ëpp téeméeri yoon ki nga xam ne moom mi ngi ak soxnaam loolu kon yonente bi alayhi salaam ne boo mënee takkal mu ne nag ki mënagul ngallaway nay woor léeg-léeg woor googu dana ko mën a téye ba du xalaat di dem ci jigéen bu ko daganul ca loolu itamit mbokk juri dañuy gis ne mooy tegtalu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca mooy ndawal julit léeg-léeg nga jël ay bis di ko woor looli sunna la boo xam ni dana la mën a aar loolu kon mooy la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale am na ay pexe yu nit ñi def ba lañ waroon a am ca soxna ya ñu koy jëfee ci seeni loxo ñu koy tuddee ci tubaab masturbation ala kulli xaal mbokk borom xam-xam yi hadis bi bokk na ci la ñuy daliloo te ne loolu bu daganoon yonent bi alayhi salaatu wa salaam dana leen wax loolu waaye gis nga solution yi mu leen jox ku mën a takk na takk ku munta takk na nekk di woor léeg-léeg donte ne ni ak yeneen danger ya nekk ca loolu lu bokkul ak loolu mbokk kon dañuy gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it tegtal bi mu joxe ca la daan wax ne ngalaway kenn ci yéen su dajeeg jigéen ci mbedd mi mu yiim ko bu mu tax mu cay dox tànki caaxaan ne dem ca këram ndax soxna soosee mu dajal mu yéem ko la mu àndal rek moom la soxna mu àndal loolu kon di mbir moo xam ne ni it ku nekk ci ñun war a bàyyi xel ci loolu ci lii nga xam ne mooy am soxna ni mu mën a protéger doomu aadama loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax donte ne ni lii day firi rek la yàlla jalla wa ala wax ci suratu nuur cañ ko doon jàng sànq ca mooy wal yastafifi allazina la yajiduna nikahan xatta yughniyahum allahu min fadli ki amagul kattan ci sëy na fet boppam ba bàyyi yàlla di ko woomalal allahuma nag suñ borom lam ca jiital mooy may leen soxna ñi nga xam ni dañoo nekk célibataire ci yéen dugal leen ci néegu sëy célibataire yi nekk ci yéen loolu moom ma ngay wax ak kilifay soxna yu jigéen ya gis nga jeune bu baax bu am diini bu am teggin amagul nag moyen yum takke yow nga jël sa doom may ko ko jàppale ko loolu ci jaamu yàlla yi mag la bokk moo tax suñu borom bégal ñu ci it ne in yakunu fuqara yughnihum allahu min fadli su dee ne ba nga koy may yàllaa tax nga jàppale ko ci bu nekkee faqirit yàlla dana ko may ak woomle waaye loolu ma ngay jóge ci wëliyu ya amma ñi nga xam ne amuñuy moyen la leen borom bi wax mooy muñ leen ba am loolu kon di mbir yoo xam ne it buñ koy jël di ko jaawale donte ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu xamee jeune jeune bu jógee di dugg ci mariage la ko cay gën a yóbbu mooy fekk boppam ak sàkku ca ay mbëggeel ki bànneex waaye lii yonent bi wax am na lu ko gën a màgg lool ca mooy am doom ca mbokk nañu xam ne meññeent bi gën a rëy bu sëy di am mooy doom heure boo xamee ne sëy nga ba am ca doom doom boobee di jaamu yàlla sa kanam jaamu yàlla sa gannaaw di la ñaanal loolu mooy la gën a màgg lu ñuy sàkku cib sëy ñu ngi noonu donte ne ndaw ñoom doon waxal ñoom la leen di gën a puus nekk na leneen du dul loolu loolu mbokk moom mooy xadis bu njëkk bi suñu delloo ci xadisu ñaareel bi nga xam ne mooy tolloog ci mool bi ma yor neuf neuf cent quatre-vingt-quinze wa an anas ibn malik radiallahu anhu jële nañ ci anas anna nabiya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne yonent bi day bis xamidallaha gërëm na yàlla mi ngi noonu sant na yàlla wa asna alayhi daal di tagg yàlla jalla wa ala wa qaal lakinni ana usalli wa anaam mu ne waaye man day damay julli di nelaw wa asuumu wa uftir damay woor di dog wa atazawaju nisaa te damay denc it ay soxna faman raxiba an sunnati koo xam ne dafa xemmeem jëm ci leneen lu dul sama sunna raxiba fii mooy xemmeem na jëm ca raxiba an mooy xemmeem na lu dul loolu faman raxiba an sunnati ku xemmeem leneen lu dul sama sunna fa laysa minni kooku bokkul ci man muttafaqun alayhi buxaari ak muslim génne nañ ko mbokk suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw bis soxna yi ne tili ko am na day mbooloo mi fi ñëwoon laajte naka ngay jaamoo yàlla ci lu ñu yëgul ñoom ñoom yaay Aysa nettali leen jaamoog yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñu mel ne daal dañ koo xeeb ba mujj ñu ne ah ñun ak moom sax yéemuñu ndax moom yàlla baal na ko bàkkaar yim ma sa def ak lim nar a def am ñenn ci ñoom ne man day bis na ki tey dootuma nelaw guddi ba baa may dajeeg suma boroom am keneen ku ne man day bis na ki tey dootuma dog bëccëgu koor ba baa may dajeeg sama boroom am keneen ku ne man day bis na ki tey damay nekk ab labbe danaa dëddu jigéen ñi dootuma jaxasoog jigéen sama dund yépp ma jagleel ko diine ci biñ ko nettalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu xam ne xalaat bii ñii am mën na dem ci ñeneen mu daal di bàyyi ba jàkka ji nit ñi fees mu daal di yéeg ci kaw minbar bi def lu mu daan def lépp lu mu daan def lu am solo comme niñ ko nar a jàng ci xadis ci kanam da daan jiital sant boromam subhanahu wa taala te julli te lépp la muy wax te jiitalu ci sant yàlla loolay wax ju manqué lay doon sant yàlla tagg yàlla te gis ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jaam bi buy julli bu ne alhamdulillahi rabbil alamin suñu borom ne malaaka yi xamidani abdi sama jaam bi day sant na ma ndax nee na mboole mi sant ñeel na yàlla mi borom mboole mi mbindaa fa soo ne arrahmani rahim yàlla yaay yërëm sa jaam yépp yaay jagleel yërmaande sa jaam yàlla gëm mu ne malaaka yi asna alayya abdi sama jaam bi day tagg na ma gis ngeen kon yonent bi alayhi salaam mu ne sant na yàlla tagg yàlla gannaaw ba mu ne dégg naa ay nit ñuy wax nangame ki nangame ki nangam waaye man day danay taxaw guddi di naafila waaye it dinay nelaw mu ngi noonu di tontu waa dina woon dootu nelaw guddi te it mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko daan jox yaramam àqam la yonent bi daan wax naan yàlla dafa am ci yow àq sa yaram am ci yow àq mi ngi noonu sa soxna am ci yow àq kon damay nelaw di naafila te it la nga xam ne moom la ñuy suñu yaay Aïcha nettali mooy da daan bàyyi ba ganaar sab sab gu jëkk ca la daan doog a yeewu sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne maximum trois heures de temps lay doon avant fajar commencé di naafila mais li ci des moom da koy nelaw sallallahu alayhi wa sallam amul benn guddi yum daan tegale di ko taxaw lépp lu dul lu très rare lan la ca saxaloon mooy fukki guddi yu mujj ci weeru koor loolu daal lañ ne moom mu masaan ñëw guddi gi yëpp da koy nekk di ko taxaw di naafiri di jaamu yàlla waaye bu dul looloo day nelaw di noppalu su ne ay Aïcha nee na amul benn heure bu ma bëggoon a gis yeneen bi taxaw di naafi la ci guddi gi lu dul gis naa ko minuit deux heures trois heures cinq heures amul benn heure bu ma ko bëggoon a gis muy nelaw lu dul gis naa ko minuit deux heures trois heures cinq heures almuhim kon lool la muy wane ne kon ku bëgg a jaamoo yàlla ne dootu nelaw guddi loolee mbokk bokkul ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg na nga dégg ñuy tagg ay sëriñ naan daawul nelaw ak kaza wa kaza loolu mbokk ay ñàkk a xam rek la mi ngi noonu am na rek lañ gis ku tagg Abu Hanifa ñu ne Abu Hanifa toog na 40 ans njàpp gee ci lay julli fajar mbokk yooyu dara wéru ci amma waa ji ne woon man damay woor dama dog yonent bi naa man day dinaay woor ca danaay dog te la ëppoon mooy lam daan dog moo ëppoon bal la nga xam ne moom la saxaloon la yaay Aïcha wax mooy weer wu ne daana ci war ñetti fan sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu léeg-léeg mu war ca début ba war ci digg ba war ca fin ba ala kulli xaal loolu mooy la ëppoon lam saxal léeg-léeg mu yokk ci la ko soob Aïcha ne na léeg-léeg daana woor bañ ne dootu dog léeg-léeg daana toog du woor bañ ne xanaa dootu woor almuhim mi ngi noonu daana waxit sallallahu alayhi wa sallam ne képp ko woor lu ëpp genn wàllu weer koo ko xamal ne wóoroo koor gi gën a kawe ci lislaam mooy kooru daawuda woor tey ëllëg nga dog wala nga woor trois jours noppalu trois jours wala woor quinze jours noppalu quinze jours ala kulli xaal genn wàllu temps la doomu aadama am droit woor mu ne bu dee soxna it man damay ànd ak samay soxna naam sallallahu alayhi wa sallam danay ànd ak ay soxnaam ci na góor ñi ànd ak seeni soxna loolu tamit képp koo xam ne dana day jaamoo yàlla du ànd ak soxnaam loole mbokk da ngay gis ne ah, ak ñàkk a xam la dégg la nga dégg ñu ne suñ diw musul ànd ak soxnaam ku ci masaan bëgg ëmb day bindi téere rek jox la nga daal di ëmb mbokk yooyu yooyu yaay wax rek la léeg-léeg sax ñu indi ci loo xam ne jàpp nañ ne dañuy tagg ci dañuy saboote ñu ne am na benn doomam dafa tàngoon lool ndax bi muy jox yaayam téere daa fekk muy ëpp taal ba waaye mbokk yooyu ay wax la rek ala kulli xaal bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee lii ba pare mu ne nag lii mooy sama sunna koo xam ne sama sunna da nga koo xeeb kooku bokkoo ci man mbokk xadis bi nekk xadis bu rëy boo xam ne képp koo xam ne yaa ngi sos ay bidaa ngalawaay waroon ngaa jot ci xadis bi ndax ñu bëri la ñuy layele biddaa mooy nangam bi lu ci nekk xanaa du jaamu yàlla la na am mbokk julit waaye jaamu yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam la yàlla yónni woon muy médecin bi nga xam ne garab yi nekk ci pharmacie baax na waaye garab bu nekk moo naan la nii nga ko war a jële fii nga war a yem am déet waaye dem rek pharmacie ñu ne la garab bi baax na nga daal di jël daal di xóoyal paquet ba yépp naan yaakaar naa doo ko netti bi kon it jaamu yàlla yi noonu la demee yàlla moo ko jox ab yonentam ba pare ne ko nii laa ko bëggee taxaw julli naafila ba fajar jot soo ko waxee ku xamul nga ne ko loolu biddaa la ku saxal loolu biddaa la naan lu ci biddaa xanaa du jaamu yàlla ki nga xam ne day woor toujours buñ ko waxoon ku xamul ñu ne ah kooku ma ngay def biddaa lu ñuy wax ah xanaa loolu du jaamu yàlla waaye mbokk bidaa mooy bépp jaamu yàlla boo xam ne rafetlu nga ko di ko def te yonent bi jëfiwu ko dégluwu ko lii mooy la nga xam ne mooy bidaa ci lislaam loolu kon la wax ci wàllu googee mu ne ku koo xam ne dafa bàyyi sama sunna kooku bokkul ci man bu ñu jëlee xadiisu ñetteel bi mooy anas ibn malik moo koy nettali ba tey qaal kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya'muruna bil baa'a yonent bi daanañu digal ñu denc soxna wa yanha ani tabattul daana tere ak labbewu lan laa jublu ci labbewu mooy dëddu soxna yi jublu ci ak jaamu yàlla nahyan shadidan da ko daan tere tere gu tar ci góor du mooyu soxna bañ a takk soxna loolu mi ngi noonu la doon da caa jublug jaamu yàlla wala lu mën a doon wa yaqulu daana wax tazawwaju lwaluud alwaduud takk leen soxna yi mën a am doom soxna yi sopp seeni borom kër fa inni mukaafirun bikum al anbiyaa yawma alqiyaama ndax man day damay nekk di bari leen tey ak yeneen yi yawmal qiyaama ci kan mooy ka nga xam ne moo ëpp ak mbooloo mbokk kon xadis bi yeneen bi alayhi salaam daan ñaaxaate ci nit ñi takk mu ne nañuy moytu di dëdd soxna yi gis nañ ñu ne nasaraan yi ba Isa ibn Maryam demee dañoo sos jaamu yàllaak ne nitug diine warul am soxna du évêque du cardinal du lu mën a doon du takk soxna pour ñoom loolu la suñu borom nag ne wa rahbaniya ittada'uha ma katabnaha alayhim illa ibtighaa ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha ñoom ñoo fi sos ne du ñu jege jigéen ñi diggalu ma leen ko woon ca noonu ñu ko waxe sàmmiwuñ ko noonu tey déglul Occident la fay xew ci seen niti église yi waxuma dem njaaloo waaye pédophile yi ànd ak ay gone yu góor yi ndaw ànd ak lu nekk kenn xamul kon yonent ba da daan tere nit ki mën a takk soxna ba pare bañ a takk soxna te loolu it léeg-léeg gis ci intellectuel yu bëri yoo xam ne nii seen yoon nekkul ci loolu pour ñoom nekk seen liberté moo leen dàqal waaye mbokk loolu wax nañu xam ne jaaduwul yonent bi teg ci ne takk leen soxna yi takk leen nag ñu mën a am doom ca bëgg leen te la chaque ne jigéen ni ñuy xamee mën na am doom loolee lañ koy seeti lu ci bëri mooy ci famille boo xoolee yaayam xool ay tantaam xool ay sëram dañuy gis famille yoo xam ne famille yu mën a am doom lañ ak famille dul am doom te loolu it daf ñuy jàngal ci ne am na ñenn ñu am moyen yu doy léeg-léeg dañu naan man bëgguma kuy am doom seetal leen ma daal koo xam ne nii waaw màggatugul waaye nag du ndaw waaye daal ku dul am doom laa bëgg waaye mbokk bu la yàlla maye ay moyens xamal ne doom xéewal la sunu maam Ibrahima bi muy am njaboot jege na téeméeri at di kon doom jooju sàkk ko rek takk leen ñu mën a am doom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne it ñu leen bëgg ndax xam ngeen ne sëy mbokk bu ca bëggante amul yàlla bëggul sëy boobu gërëmul sëy boobu te it soxna si da ngay gis ne su la bëggee xëy na loolu mooy gën a poussé ak doom di mën a yomb ci seen diggante mu ne ndax buñ dajee yowmal qiyaama danaa taxaw ci kanamu anbiya yépp di wone sama mbooloo kon fexe leen baril sama mbooloo kon bépp jullit bu am doom yokk na mbooloom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bépp jullit bu am doom xéewal googu mboolem jullit la ko yàlla boole yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ajjana yàlla dana ko def téeméeri sàppe ak ñaar fukki sàppe juróom ñetti fukki sàppe yépp ci sama xeet la ñuy bokk yàlla na yàlla boole ñu ci loolu la ñuy tuddee trois quarts trois quarts waa aljanna mooy jullit ñi ko topp waaye it yow jullit xamal ne fu yonent bi taxawee daa di ne sama mbooloo mi ni muy ay milliards waaye yi it nga taxaw xool geestu gisul mat 40 doom sa gannaaw gaa yi loolu da nga puukari bu keroog di am déet mi ngi noonu boo amul 40 daf ko 20 bopp waaw wala boog nga wàcc ba 10 bopp waaye gis nga tubaab bi bi mu ñëwee ak seen caricature yi jàpp ne non nit ñi ñàkk xam c'est des géniteurs ñu jël seen ku ñu tuddee ne seen ambassadeur la mu créé ay way ah Moodu sama doom la Samb sama doom la Fatou sama doom la chet loolu bari na. woy yooyu yooyu bëgg maa am doom bëgg maa am doom bu bu añee du reer woy yooyu bëgg maa am doom mbokk loolu xoolal li ñu suñu borom wax wa ma min dabbatin fi l ardi illa ala allahi rizquha amul kenn koy dox ci kaw suuf waxuma doomu aadama de yàlla nee na looy dox rek commencé ca ñay ba ca fel yàlla nee na maa gàddu wërsëgam suñu borom ni yarzuqukum wa iyaakum wa moo yarzuquhum wa iyaakum may wërsëgal doom yi di leen wërsëgal beneen aaya mu ne maa leen di wërsëgal di wërsëgal doom yi loolee kon mbokk nañu xam ne tubaab bi moo ko fi indi waaye am doom du mooy ñàkkloo nit ki wërsëg wala di wàññiloo nit ki wërsëg ni ngi noonu kon loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci loolu ci xadis boobu it mu ne noonu ko ñii génnee abi daawud solo na ko ak nisaa'i ñu jële ko ci maaqal ibnu yasaar gannaaw ba ka ñëkk a jëkk a génnee jëlee ca ka nga xamee ne nii moom mooy anas ibnu malik mi ngi noonu radiyallahu anhum kon mbokk xadis yi ñu jàng bi ci jiitu di neuf cent quatre-vingt-dix-huit bi وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تنكه المرأة لأربعة dees na takk jigéen ngir ñeenti mbir li maaliha ngir alalam wa li xasabiha ak famim wa li jamaaliha ak taaram wa li diiniha ak diineem fasfar bi zaati diin na nga doon koo xam ne da ngay gañi di tànn ka nga xam ne mooy borom diine ja taribat yadaaka su boobee day sa loxo dana taq ci suuf ca loolu lañ koy jànge lañ koy dégg ci arab mooy in lam tazfar mooy boo tànnul nitu diine day da nga dóor sa loxo ci suuf ay muttafaqun alayhi maa baqiyati saba mu ngi noonu xadis boobu buxaari muslim solo nañ ko kon mbokk dañoo gis ni rasul salaa sallam day wax li ëpp li nit ñi di takkee soxna la ca jiitu mooy nit ñi dañuy takk soxna ngir man ca am benn promotion ngay gis benn waaye ngi bu faatoo bàyyi alal soxna yem bàyyi ñu bari dañuy bëgg a profité ñëw ngir ndaw si am na moyen yum leen di terele walla am alal gum mën a doon doonte ne alal jooju daan cee boole situation ba muy dund nga doon kooku dañ ko neme mu nekk ministre walla dafa doon ay directrice wala lu mu mën a doon góor ñu bari mën nañu sawar jëm ci moom la koy waral mooy lañ mën a amee ci moom ci alal am na ñoo xam ne lay tax ñu takk soxna mooy famille ba mu bokk li tax mu takk ko daal mooy imma mbokkam la du takk ku dul mbokkam wala boo gis na soxna soo xam ne nekk na ci famille bu kawe moom it mu bëgg yëkkati ay darajaam bëgg am foofu soxna ngir mu mën a yëkkati ay darajaam bu fa amee njaboot am na ñoo xam ne li takk tax ñuy takk soxna mooy taar wa mu àndal te lu bari sunu ndaw yi tey loolu mu leen di yóbbu ci soxna mooy soxna su Facebook ak soxna su WhatsApp ak soxna su yooyu mooy taar ba dong moo leen ci yóbbu seen yoon nekkul ci ay jukkoog ay famille ay yeneen ya maam yi doon wax sax léegi yooyu dépassé nañ ko nataaru rek jeex na loolu nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne am na ñeneen ñuy takk soxna fekk diine moo tax ñu takk ko naam am na ko wax lu bari da ngay gis ñëw imam daal vraiment soxna laa bëgg mais daal jigéen buy muuru laa bëgg su ko xam ne dafa sonn pour am jigéen buy muuru jigéen boo xam ne dafa am diine dafa am nangam nangam loolu moom mooy priorité mooy ku am diine yonent bi alayhi salaam nag ne boo fexee ba takk beneen soxna te takkoo ngir diine da nga mës a door sa loxo ci suuf ndax ki nga xam ne moom dafa wóor ne kii kat li tax mu ñëw ci moom mooy sama alal ñaar rekkee am da nga topp ay ndigalam wala mu téye alalam dàq la am déet la sumil sa xaftaan nga dem sa yoon kii nga xam ne it moom xam ne ne nii moom moo la ëpp famille ëpp lay daraja ku mel noonu nooy mën a sëgg ci kanamam rek bu loolu amul mu ne le xam nga ne du ma sa morom nangam nangam sa mbata njaay naka noonu it ki nga xam ne moom ab taar rek moo tax taar boobu am nañ suñu benn waaye bu nekk ci jàkkat yi day wax ne taar moom bu dee kese darul takki jigéen ndax nee na soxna boo ko takkee six mois après rek gisutoo taar bi ñeneen kay ñu naan jabaru diw ji rafet waaye yow moom gisutoo ko jukk ji rek ngay xool yaa ngi dégg loolu kon fexeel ba booy takk nga tekk diine donte ne yonent bi alayhi salaam it moom lam ñuy ñaaxoon mooy diine ak jukko bu rafet te it ñaar luy lënkaloo la en général ki am diine ci comprendre diineem fokk jukkoom dana rafet ndax diine ji moo koy tënk ci lu ñaaw malheureusement nag léeg-léeg mu am koy pratiquer diine ci déggul diine ca góor ñi ak ci jigéen ñi ñooñu la ñuy gis erreur yu ñuy def waaye ku jàng diine ba xam ko en général fokk jukkoom dana doon rafa rafet ndax yonente bi alei salaam nee ne diine ji nekkul lu dul mottali jukko yu rafet yi innama bu'istu li utammima makarim al axlaq loolu kon bokk la ñu war a bàyyi xel ci ne képp koo xam ne nii ngalawaay yaa ngi takk soxna nga bàyyi xel loolu waaye mu lay jàngalit ne képp kuy maye sa doom it bàyyil xel loolu fexeel ba bu ko mayee ci alal kese wala taar kese wala famille kese tànnal koo xam ni am na diina am na jukko ju rafet soo bañee ak rëcc bañ a am ci loolu ëllëg loolu kon la hadis yooyu di wone bu ñu delloo ci hadis bi ci tege mooy hadis boo xamee ne nii ki ko solo mooy ki solo woon bi nga xam ne mooy bi passé ca muy Abu Hurayra ba tey أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع يننت بدي بمسا نك دي نيانال نيغي نونو إنسانا heure buy ñaanal nit ki ci wàllu sëy ay bu ko daan ndokkale ida tazawaja qaal heure boo xam ne nit ki daa am soxna yonent bi di ko ndokkale di ko félicité ci waxi tey moom lu mu daan wax baarakallahu lak yal na yàlla barkee lal la ñeel la lim li wër sëgal te mooy soxna si wa baaraka aleyk yal na la yàlla barkeel yow ci sa bopp wa jamaa baynakuma fi xayr yal na yàlla boole leen ci aw yiw loolu ni ngi noonu mbokk dañuy gis ni nit ki bu takkee soxna dañ ko war a ñaanal waaye bu dee ne beneen njàngale bu dul njàngale lislaam léeg-léeg gis ñoo xam ne daal eh bay ndokkale waay gaa yi ndokkale lu muy jëriñ wala eh félicitation félicitation lu muy jëriñ nit ki bu takkee soxna da nga koy ñaanal nit ki buñ ko mayee borom kër da nga koy ñaanal la gën luñ koy ñaanal mooy barke mooy alxayrul kasirul baaqi yiwu sax loolu mooy barke ci lislaam heure boo ñaanalee nit ki barke barke mooy ñoddi lépp luy jëriñ di dàq lépp luy lor loo koy jëkk a ñaanal takk nga soxna baarakallahu lak yal na yàlla barke lan la soxna si loolu mooy lépp luy njëriñu soxna si yal na yàlla jagleel la ko lépp luy lorom yal na yàlla aar la ci te loolu it moo taxoon rasul sallallahu alayhi wa sallam daan ñu wax kenn ci yéen bu tekkee soxna balaa ànd ak moom cib lal na jël loxoom teg ci jëm daa ji ne allahuma inni asaluka xayraha wa xayra ma jabaltaha alayhi wa auzu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi yàlla soxna si yàlla nag ma may yiwam ak yiw yi nga xam ne da nga koo binde mu jukkowoo ko yàlla nag ma musal ci ayam ak ay wi nga ko binde mu jukkowoo ko loole kon ngay ñaanal barakallahu lak waaye itamit wa baraka aleyk yow it takk bi nga takk soxna yal na yàlla barkeel la ca mbokk sëy day indi barke ci doomu aadama jàng nañu sànq day yonent bi sunu borom subhanahu wa taala ni ki takk soxna même bu doon ñàkk na yàlla dana ko woom leen in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli yonent bi alayhi salaam daana wax ne ñii fokk yàlla dimbali leen ñett ñi yàlla da leen dimbali mu boole ca képp koo xam ne yaa ngi dim dugg ci sëy ca jublu ca fekk sa bopp ba doo dem ci njaaloo kon yow it yal na yàlla barkeel la gis nañ ki nga xam ne mooy Jaabir ibn Abdullah nee na damaa ñëw ci Yonent bi alayhi salaam ne ko ah man de damaa takk soxna ne ko ah takk nga soxna mu ne waaw mu ne ko ah loo takk mu ne ko ah ab jeeg laa takk waaw mu ne ngaa takk ab jànqwaay ndax ngeen di ànd di fo ah mu ne ko déet sama bàyyi dafa faatu bàyyi ay sœur ma am sœur yu bari ci kër ga ma bañ a takk nag ko toll na ñoom ñëw mu indi histoire moo tax ma takk ab jeeg yonent bi la ko wax nga dëgg baarakallahu lak wa baraka aleyk wa jamaa baynakuma fi xayr ñaanal ko waaye ñaanug yonent bi bokkul ak ñaanug imam Sarr yàlla na yàlla nangu ñaanug imam Sarr nangu seeni ñaan jaabir nee na kër gu ma yonent bi alayhi salaam ñaanalee loolu fekk bi may takk soxna uma dara waaye dem ba ma demee ca marché ba lu ma laal rek yàlla barkeel ko mi ngi noonu mu mujj doon ko riche loolee kon ñaan googee dafay doon luy barkeel la nga xam ne muy sëy bi gannaaw ba it yonent bi ne yàlla na yàlla boole leen ci yiw yàlla na yàlla boole leen ci yiw am na ñoo xam ne ñi ngi sëy vingt ans waaye sëy musiba rek mi ngi noonu sëy musiba rek léeg-léeg nga gis koo xam ne day ñëw di tuuru sa kaw mi ngi noonu su ko defee ñett yu am solo la fexeel ba waaye mokkal ko ci langue bi nga xam képp ko takk soxna képp ku ñu may jëkkër loo koy ñaanal yal na yàlla barkee lal la ay lim la wërsëgal yal na yàlla barkeel la yal na yàlla boole leen ci aw yiw loolu mi ngi noonu mboolem suñu sëy yal na yàlla def ci barke xadis bi mu jëjal mooy xadis abdullah ibnu mas'ud radiyallahu taala anhu moom it mu ni قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد في الحاجة يرنت بين جانجل ñuy tudd seede yi baatu seede yi ci bu ñuy def sunu xaaja ca mooy fa ngay waxe ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah mu daal di koy détaillé ne yonente bi alayhi salaam de bu masaan di bëgg a wax benn aajo lu muy wax inna alhamdalillah moo leen mi cant ñeel na yàlla nahmaduhu yàlla moom ñi ngi koy sant wa nastainuhu ñi ngi koy dimbali ko wa nastaghfiruhu ñi ngi koy jéggalu suñu bakkaar wa nauzu billahi min shururi anfusina ñi ngi ñaan yàlla musal ñu ci suñu ay bakkan wa min naam ah man yahdi llahu képp koo xam ne yàlla da koo jubal fala mudilla la kenn mënu koo réeral wa man yudlil ku yàlla réeral fala hadiya la kenn mënu koo jubal wa ashhadu an la ilaha illa allah maa ngi seede ne kenn yeeyewul ñu koy jaamu ko dul yàlla wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu de seede ne muhammad jaamam la yonentam la wa yaqra'u salaasa ayat gannaaw ba mu jàng ñetti aaya mbokk xadis bi da ngeen gis imaam yi di ko wax ci xutba sëy di ko wax ci xutba jumaa yonent bi alayhi salaam it bépp déclaration bu mu daan wax ak jullit ñi lii la daan jiital ca mooy wane ne mboole mi sant yàlla rek la ñeel wane ne yàlla moomu la ñuy dimbiliko mbokk jullit ci yàlla lay dimbiliko allahuma lu dul sa mbokkum jullit mën na laa dimbili ci lum teewe man ko waaye ku fi nekkul ak ku faatu kenn du dimbilikoo ci moom kenn du wax maa ngi dimbilikoo ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala abubakar wala omar comme ni ñuy déggee suñ jamonoy tey yàlla na la sëñ diw jàppale sëñ diw gis na seen liggéey dana leen fay dana leen nangam bokk loolu bokkaale gu rëy la goo xam ne xew na léegi suñu réew gannaaw ba mooy ñi ngi jéggulu yàlla ca jullit it heure boo defee bakkaar wa man yaxfiru zunuba illa allah yàlla mooy jéggale bakkaar loolu mi ngi noonu bokkul ak nag sa moroomum jàmm moo xam ne yaa ko tooñ nga ñëw na ko jéggal ma loolu moom mën naa nekk fekk yaa ko tooñ amma njaaloo ga nga defee karfe ga nga defee ab imam mu ne la koo jéggal ab sëriñ mu ne la koo jéggal comme na ma xewee ci diine nasarane ñu ñu sos ko ci seen diine gannaaw bi ñu ngi ñaan yàlla musal ñu suñu ay bakkan mbokk bakkan boobi suñu borom nee na wa inna nafsa la ammaratun bi suu illa ma rahima rabbi bakkan day diglu lu bon doonte ne am na bakkan buy yeddaate muy nafsul lawaama am na nafsul mutmainna may ñu yàlla may ñu xeex ak seen bakkan ba bakkan bu di leen yóbbu lenn lu dul lu neex yàlla waaye li ëpp ci nit ñi seen bakkan da leen di digal lu bon moo tax mu ne ñi ngi ñaan yàlla musal ñu ci sunu ay bakkan yonent bi mu ne leen xam leen ku yàlla jubal kenn mënu ko réeral te mbokk njub ci loxo yàlla la nekk mi ngi noonu yàllay dem Amérique fekk fa américain bu juddoo Amérique yaru Amérique yàlla ubbi xolam muy wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mu dem biir Arabie saoudite wala biir Liban wala benn feneen gis fa arab boo xam ne téeméeri maamam ay arab lañu ñu nekk ay chrétien wala nekk ay athée kon mooy jubal ku ko neex moo dem ca palais Firawna kàccoor ba jubal soxnaam dugal ci lislaam réeral ku ko neex dem ci yeneen ci yàlla nuux mi woote junni at mu réeral soxnaam réeral doomam ku yàlla réeral kenn mënu koo jubal mi ngi noonu loolu kon lay wax gannaaw ba seede ne yàlla rek yeyoo ñu koy jaamu seede ni moom jaamu yàlla la yonenti yàlla la te ñaar yu am solo mooy abdun laa yu'bad rasulun laa yukazzab yonenti bi alayhi salaatu wasalaam dafa am ñaari extrémité yu mu yem kenn woo ko ko paasale benn bi mooy ku kawe la ndax mooy yonenti yàlla bi ay kon moo tiim mboolem ñi ko yàlla yónni ñu war koo màggal ci loolu tapp ay ndigalam waaye nag du tax mukk ñu yóbbu ko di ko jaamu dañuy saxal ne jaamu yàlla la loolu tax di ngay taaye sànq wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bi ngay jàppee ba pare ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu jaam la yonente la mi ngi noonu kenn du ko jaamu kenn du ko yaakaar lañ siq ak moom mooy mu jot li ñu ñu topp ndigali yàlla gannaaw ba lay jàng ñetti aaya aaya yooyu ba ca jiitu ma nga nekk ca suratu ali imran mi ngi noonu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ay yéen julit ñi ragal leen yàlla ni yàlla yee ñu ragal ko ko bu leen dee lu dul da ngeen nekk ay julit ñu ko jébbalul ñaareelu aaya ba ba nekk suratu nisa ya ayuha nnasu taqu rabbakum allazi xalaqakum min nafsin wahida wa xalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa wattaqu llaha allazi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba yéen nit ñi ragal leen yàlla ci benn bakkan la leen bindee muy aadama mu bind ca soxnaam sa muy xawwa mu génn ca góor ñu bari ak jigéen ñu bari ragal leen yàlla mi nga xam ne ci turam ngeen di laajante ca ngeen ragal yàlla ci def njekk ci biir mbokk gi yàlla xam leen ni mi ngi leen di saytu di leen surveiller fi ngeen mën a nekk aay ba ci mujj mu nekk ci suratul ahzab يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أي جوليت ني راغال لين يالا te di wax wax bu jub ci seen wàllu diini ci seen wàllu àdduna su ngeen ko defee yàlla mu ne danaa yéwénal seen i jëf baal leen seen i bakkaar képp ko topp la yàlla wax topp la yonent yàlla wax ku mel noonu day texe ne gën jàmmaa gi texe lii kon la yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ci sëy malheureusement nit ñi comme déggatuñu arab heure bu imam di def déclaration di wone ne nit ñi kat mayante nañ léegi nag muy indi xutba xaajo pour saxal liñ mayante ci géej bi ba commencé in alhamdulilah rek gars yi commencé amin amin yaa yuhan naas amin amin amin mi ngi noonu ba imam di jeexal mi ngi noonu doonte ne lu jëkk li ma nekk sa cee wax amin mais bu demee ba commencé jàng alquran dañoo war a noppi xam ne mi ngi ñuy waar loolu mi ngi noonu am ma mbokk xadis bi ci tegee am foofu la ñu yemoon non foofu la ñu yemoon non kon bokk suñu bind bu mujj wa an jabir qaal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة كن تيين بي ساكو سخنا غير تاكوكو فإن استطاع أن ينظر منها سو أمي كاتن تي مانا خول تي سخنا سا إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ca la nga xam ne ña ngi koy woo jëme ca ci mu takk ko ngalawaay su ko mënee xool na ko xool mi ngi noonu rawahu ahmad wa abu dawud wa rijaluhu thiqat wa sahahu alhakim wa lahu shahid inda tirmisi wa nasai an almughira mi ngi noonu kon mbokku hadis bi yonent bi salallahu alayhi wa sallam daf ñuy wax ni ci nga xam ne dafay labat soxna pour takk ko su ma nee xool la muy labat nga la way na ko def te mbokku islam dafa bëgg ñaar ñi dencante doon ñu bëggante looloo tax ku ne dafa war a xam sa moroom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu ko mënee xool na ko xool xool boobu nag borom xam-xam yi am nañ ci ixtilaaf am na ca ñoo xam ni dañ ne mi ngi yem nga xool kanam gi xool loxo yi nga xam ne fi muy takk montre jëm suuf rawatina ulamaaw yi nekk Arabie Saoudite nga xam ne ñoom dañoo gis jigéen dara warul feeñ ci moom du kanamam du dara ñeel góoru jàmbur amma ki dem ba dogu pour takk ca koo kiit lañ ko may ki dem ba dogu ci ne li muy seet bu ko gisoon tey takk kooku may nañ ko mu xool kanamu ndaw si xool loxo yi fi muy takk montre jëm suuf am na ca ñeneen ñoo xam ne ñoom dañoo gis ni loolu góor ñépp mën nañ koo gis kon ki dem ba dogg ne dafa bëgg a takk ku mel noonu bu sakku woon xool li frère ndaw si mën a gis ci moom bàyyi mën a gis ci moom war nañ ko ko mën a won ca mooy ndaw si dina muraayam mu xool loos wi xool bopp bi xool loxo yi ba ci kaw conce bi xool la nga xam ne mooy yeel yi te loolu la bàyyi ak frère am droit gis ci sœur mi ngi noonu am maa nag am na ci yenn ndaw ñoo xam ne dañuy gis texte yi rek di ko déppale ak seen bànneexu bakkan na am am na lu ñuy tuddee zahiriya mooy dawr zahiri nga xam ne ñoom seen fiq fiq la bu ñu boyal texte bi ñoom dañ naan rek dañ koy appliquer noonu ca ñoom dañu naan comme yeneen bi nee na na boo ko mënee xool xool ko kon am nga droit xool léppam wal iyaas billah ba kenn ci soxna yi di nettali am na benn jeune bu ko woo ne ko daal dama laa bëgg a takk dama bëgg nga futtee ko ma xool la nee na ma futtee ko ci kanamam mu xool xool ba pare dem na ah man daal bàyyil ma seeti keneen yaa ngi de mbokk loolu ku ne xam ne ne ne njàngaleem lislaam ak xikma lislaam passé na foofu koo xam ne nii du sa borom kër ngay futtee ko ci kanamam loolu islam passé na foofu kon lañ cey mën a wax mooy ñaar yooyu imma ñu ne day yem ci xool kanam gi ak tibbi jare yi wala le maximum li frère am mën a gis borom xam-xam yu ne bu nekkul mën nañ nekk ci foo xam ne wéetuñu frère am la nekkal bàyyam la nekkal wala wéetu leen mu génne la frère am mën a gis nga gis ko bu la doyee gannaaw bu booy takk nga takk donte ne loolu du ma nekk en permanence mi ngi noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne su ko mënee na ko def donte ni nii jarul ñu leen di wax ci ne li xew suñu jamonoy tey ji mooy jabar nga xool ko ci Facebook wala photo wala feneen mbokk photo mënul indi réalité abadan li la koy war mooy mën nga teg fi fukki photo benn doomu aadama benn du ci nu rek moromam am déet li nga noonu ça dépend rawatina léegi avec informatique fat càm mën na ñuul mel ni bukki ñu taaral ko mu daal di xees pecc ba mel ni Miss Sénégal loolu kon bokk kenn du takk soxna ci loolu quel que soit d'accord bi ngeen mën a d'accord ay yow Moodu ñëwal ba Sénégal Fatou gis la nga gis ko su ngeen dee conclure seen sëy ngeen doo ko conclure waaye bu leen ko takk mukk ci ay image ak i vidéo kon loolu la yonent bi alayhi salaam wax bu ko mënee xool na ko xool donte ne yonent bi daana digle ku mel ni Umu Sulaym yaayi Anas ci ni soxna bi nga xam ne da ko bëgg a takk moroomu jigéenam dem jege ko xool déjà lu mel ni ndax ay xetu gémmiñ gaag ay melokaan beeg jigéen mën na gis ci morom lu góor mënul gis bu dee kooku wóolu nga ko loolu mën na la ko defal comme na mu ñëwee ca la nga xam ne mooy sunna amma bu dee xadis bi nga xam ne moo ci tege mooy wali muslim an abi hurayrata anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qaal li rajulin tazawaja imra'a anazarta ilayha qaala la qaala izhab fanzur ilayha yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn waay ñëw ne ne ko man de damaa takk benn soxna mu ne ko da ngaa takk mu ne ko takk da nga koo gis mu ne déedéet mu ne ko déet loolu wóorul demal xool ko ba gis ko ba pare ñuy doog a wéyal la nga xam ne moom mooy ah sëy boobee loolu mbokk gis nañu ne ñëw na ci xadis ko mel ne Mughira ibnu Shu'ba demoon nañ bay géew di ko may benn soxna yonent bi ne ko waa muuxiira ndax ki ngay takk xam nga ko ndax gis nga ko mu ne ko déedéet ci waa ansaar yi la bokk mu ne ko waaw mais xam nga waa ansaar am na ci ñu bari ñoo xam ne seeni bët am na lenn lu ca nekk demal nga xool ba doy la bi mu demee ba xool ne bëgg na ko yonent bi alayhi salaam ñu doog a takk sëy bi ca loolu kon mbokk ñu xam ne daal ci gàttal góor gi noonu mu amee droit boobu noonu la ci jigéen bi amee droit ndax yonent bi alayhi salaam daana wax naan seen doom bu jigéen laaj leen ko ndax bëgg naam bëggul ñu ne ko mais day rusa wax bëgg naa mu ne boo ko laajee mu noppi xamal ne bëgg na soo ko laajee mu ne bëgg ma nag buñ ko ko may ca mbokk nit ki balaa xam bëgg nag bëggul fokk ki muy kiñ ko may mu xam mooy kan loolee kon it il faut ñu bàyyi ci xel amma mbokk xadis bi mujj mooy xadisu ibnu omar radiallahu anhuma qaal qaal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laa yaxtubu ahadukum ala xitbati axihi xatta yatruka alxaatib qabla kenn ci yéen bu mu ñëw di labat soxna ci kaw labatug sox ka nga xam ne mooy mbokk julitam lu dul mu bàyyi jiitu ko aw yazana la wala mu daal di koy jox ndigal muttafaqun alayhi mbokk lan mooy labat soxna nañu xam ne bokkul ak ni ko xale yi góor ñi defe tey xale bu góor ak bu jigéen daje bëgg naa la bëgg naa la ñu ne diw diwa koy gérer ila axiri ñuy jéem a fas yéene dem ñaari weer ñaari at jëm fu kenn xamul mbokk loolu dug labat labat mooy ki nga xam ne dem na ba jàpp ne na mën naa denc soxna mu ñëw ci kilifa ak soxna si na ko man day sa doom dama ko bëggoon jamono boobee ñuy xool dana mën a nekkam du mën a nekk su dee mën na nekk kañ lay war a mën a nekk yow jullit bi yëg ne sa mbokk jullit mi ngi wax ci doomu diw amoo droit dem di wax ci loolu loolu nga yëg ne rocceeku na wala boog mu ne la kat man bàyyi naa loolu mbokk da ngay gis ne bokk na luñ jàngoon ca bunt yi ca gannaaw ca lii ay teggin la yoo xam ne moo aju ci sunu sëy yi muy bunt bi jëkk biñ ci jëkk a jël yal na yàlla barkeel la ñu suñu sëy barkeel suñu sëy njaboot ak bépp jullit wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain dama dafa teqali koog wala dafa gëjanteeg jëkkëram juróom ñaari weer gannaaw ba jëkkër ji bind ko lettre na ko may naa la sabaat ndax dana iddewu wala du iddewu naam dafay iddewu jigéen même bu doon juróom ñaari at ngay gëjee ak sa jëkkër it du tee heure bu la mayee baat da ngay doon koo xam ne nii kuy iddewu nga jigéen lenn dong ngay tax du iddewu mooy biñ koy may baatam moog boroom këram musu ñoo bokk lal su doonte ne nag da koo takk sëy ba sëy ba duré na sept ans sax waaye ñoom ñaar musu ñoo bokk lal bis bu ko fasee keroog mën nañ koo maye mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam aleykum salaam wa rahmatullah dafa jum ci julli musalmal ca ca pareegul ala kulli xaal julli moom boo pareegul naka lay demee mooy dafa manqué benn rakka bu dee da ngaa manqué benn rakka da ngay jóg mottali benn rakka ba bu dee nag lam ci jublu mooy dafa waroon a sujjóot qabla salaam léegi mu taaye ba pare au lieu que mu sujjóot qabla salaam mu daal di doon ku sëlmal maadaama léegi sëlmal na ba pare la nga xam ne moo ca des mooy mooy day daal di sujud rek baada salaam ne ngi noonu loolu mooy la nga xam ne moo fa sës amma bu dee ne vaccination yi ñuy def base ba day dañu naan lu baax la base ba dañu naan lu baax la ndax ay médecin ñoo xalaat ba gis ne xale yi bu ñu leen vacciné dana leen muccal ci feebar yu bari léeg-léeg nag nga dégg ay wax yu ci nit ñi di wax ci yenn pays naan nit ñi dañuy vaccination dafa am lu ñu ciy dugal waaye daal ala kulli xaal tant que yow amoo lu la leer ci ne vaccination yooyu am na leneen lu ca rax xanaa daal programme la bu ñuy tëral ngir sàmm ndaw ñi loole jullit amul droit di ca yàq xelu jullit ñi mooy mën na ko def mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala ala naam naam ala kulli xaal mbokk kon waaw bismillah waaw
moom leer na ko dañuy si ñetteel laaj bi ñetteel laaj bi ñu ngi sikki sàkk ba xam kaay war na wala daay ba xam toog ba am
dama julli nekk sama ñetteelu rakka samay sikk sàkk nag ndax man bi ma julee ñaari rakka toog naa taaya am déet kooku naka lay def ku mel noonu dafay continuer ak julleem bu julli gi pare balaa sëlmal mu sujjuut qabla salaam ndax même bu ko wóoroon ne taaye na sax bu même bu ko wóoroon ne taayewul ay jóg na njëm ci ñetteel te wóor ko ne taayewul it day continuer julli gi daal di sujjuut la nga xam ne mooy qabla salaam kon it naka noonu bu ci sikk sàkkaa it dafay julli sujjuut qabla salaam rek incha allah ñu ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam waaw xanaa ñu mujjee ci mbokk bi rek waaw bismillah waaw nu muy iddewoo mooy dafa doon jigéen buy gis règle jëkkëram fase na ko keroog bi nga xamee ne nii fase bi ñëw na lay compter bu gisee ñetti règle mbir ma jeex na commencé gul gis règle wala passé na gis règle keroog bi lettre bi ñëwee lay xool tey la fukki fan ci weeru masalan tabaski mu daal di compter ñetti weer bu ñetti weer ya matee idda bi jeex na noonu lay idda woo wallahu jalla wa ala anuma su ko fekkee ci biir règle règle boobu kenn du ko compter looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan tere ñuy fase nit ki ci règle am il faut règle boobu jeex mu compter waat ca ñetteelu règle ba keroog la mbir ma di jeex والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين